Euh, avec Pape Alé Niang yàggul dara euh, bërki Dembo Ndiaye Pape faj Walfadjri euh, ñu koy xeex jeexagul ñu tegaat loxo keneen aussi ku fa nekk muy coro demain on a convoqué le directeur faj Walfadjri tey teg nañu loxo aussi ki nga xam ne mooy Babacar Touré Kewulo mi mi ngi bëgg mi ngi bëgg a bëri. waaw xam nga man nag damay damay wax dara d'abord ju ju si yenn dossiers yu ma xamul dara xaw ma ci dara lu ma xamul man xaw ma. Mm-hmm. ma yokk ci lenn gis nga syndicat seen premier avocat man la. bu ñu koy créer ak ñoom Babacar Touré ñoom Ablaye Ndiaga Sylla mhm. maa leen doon njëkk défendre a changé ci diggante bi donc damay eh, ñun ñooy xeex dama bokk ci ñi nga xam ne ne bi droit de la presse dañ ko liggéey euh, ce ne pas parce que nit ki journaliste la que soo ko toppee rek def nga yaa ngi topp ay journaliste wala yaa ngi xajamal journaliste yi. yow journaliste nga ci seen liggéey lañ leen toppee journaliste nga journaliste nga. est-ce que fii mas na leen topp man yore naa carte de presse lu mat fukki at may bind kenn masuma topp su dee da ngay bind xam nga. yéen kenn gënu leen woon virulent yéen waa PDS. ah yéen waa Sopi. oui bind nañu mais at moo taxit a chaque fois mu metti am na ñu ñu ci jàpp. Mhm. tëj leen wala ñu daan leen. waaye du ñëpp lañ ko def parce que aussi dafa am ay ay jamono la am na ay jamono soo ko jëlee jamono ñooy maam les jaar yooyu jamono jamonoy Senghor jamonoy Abdou Diouf man bokk naa ci ni nga xam ne ne bi dañ doon xeex pour que la presse gën a nekk am liberté yooyu jamono yomboon na trop ñu topp journaliste. Mhm. mais ce n'est pas parce que nit ki journaliste la. wala kilifa nga ko lu la neex ngay wax lu la neex ngay bind. da nga gis tuuti nu ñu doxalee noo xam ne teguwul ci yoon loo ñuy reproché. nu ñu war a xoolaat dama ne yow journaliste nga ba xam ci sa par rapport ak arrestation yi rek am na loo ci loo du ma ci wax. dama yow journaliste nga fii nga bokk. yaa ngi ci 7TV est que jàpp nañ fi nit fii. am na eu des cas dans le passé ba ñaar waaw ba tey mais mhm. est-ce que fii tey fi ngeen toll jàpp nañ fi nit. jamono ji déedéet. waaw xam nga déedéet kon mënees na wax ne lu tax jàppuñu leen. est-ce que du acharnement jëm ci Walfadjri. déedéet man du ma wax du tudd kenn. parce que su ma tuddee kenn rek damay tooñ parce que xamuma. Mhm. lu xew damay waxal yàlla rek mooy sama seede. mais yéen jàppuñu fi kenn toppuñu fi kenn. lu tax topp ñu fi kenn topp keneen fenn léegi coow li du loolu coow li mooy ñi ñu topp est-ce que li ñu leen di teg yanu na maanaa wala yenuwul maanaa mm-hmm. est-ce que li ñu leen teg li ci dañu yem ci seen métier rek wala am na lu weesu seen métier man mënuma ci wax parce que aussi d'abord dafay nekk ay dossiers yoo xam man xamuma ko mm-hmm. dossiers yaa ngi ci justice mais su ñu waxalee yàlla du journaliste yépp la ñuy topp parce que am na ay organes yoo xam ne bi xëy na nu ñuy doxalee ak nu ñuy saytoo euh, seen i xibaar di ko vérifier moo tax kenn du ci mën a topp waaye mhm. kenn ku ci nekk suñu yàlla rek tax a wax mhm. kenn ku ci nekk tey da nga lii rek ci presse bi ñuy wax danaan diw de topp dañ ko lii moo tax ñu topp ko mhm. am na lu tax ñu topp leen xam nga luy wax ji loolu ñu leen toppee la ñu war a waxtaanee est-ce que lii ñu leen di topp wala amul maanaa su amul maana ñépp ñooy taxaw nit ñi waruñu leen topp